bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi Baol TV Naar Fall mu ngi leen nuyu de amaan mbégte ak contentement jàkkaarloowaat ak yéen ñu nuy mbokki réew mi ak mbokk bitim réew waaye mbokk yi ku ne xam na ni la 5 novembre fii ci arène national Ligue Nicolas Enko moo fi woote combat royal war a dox ci diggante Modou Lo ak nga xamante ni mooy Ama Baldé tey nag équipe bi ñëw fii fas yéenee nekk ci seen i dernier réglage pour combat bi nga xamante ni moo jëm ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé Ligue Nicolas nag Badou yegg si na léegi mu ngi ci otoom wàccagul waaye duñ def lu dul dox xool gars yi lan la ñu tey ak journée bi nga xamante ni ñu ngi ciy dem muy la 5 novembre. Badou topp ma ñu dem ñu xool gaa yi tey lan la nar acca Badou ñu dem. Luc Nicolaï dafa mel ni oto mooy taxaw ne la Badou oto Luc Nicolaï yaakaar naa moo taxaw ne waaye wàccagul wàccagul ñu xool gars yi sëñ Fallou bokk ci li nga xamante ni mooy liggéey bi moom sëñ Fallou. borom njaay production am bu Pikine gaa yëpp a ngi fi saan li yëpp ci wàccaay bi ña nga di waxtaan nekk ci seen bopp sëñ Fallou Ngok Ndiaye production mu ngi taxaw ak Père Sowru Fall waa taxaw nii Badou siyaar naa leen Père Sowru siyaar nan Mass sëñ Fallou siyaar nan ñoo taxaw nii Badou sëñ Fallou borom Ndiaye production ku ko xam-xam ko ak liñ ko laay moo taxaw ni ñu nuyu ko waxtaan ak moom Fall nuyu na la ziar. dellu ziar bu wér di leen jox seen wàccuwaay am mbégte ci ngeen daal ñu sama kër Baol TV moom sama kër la ah asawru <laughs> ziar nañ la baax naar uh-huh. tey ñu gis ngeen ñëw fii ci arène national yaakaar naa yéen a ngi ci wàccaayu le 5. dëgg la waaw comme ni nga ko waxee rek ñu ngi arène nationale actuellement police ñëw na sapeur ñëw na euh, ligue la ñuy xaar agsi na pour ñu waxtaan ci le 5 muy dimanche incha allahu rabbi ci Ama Baldé Lo ñëw pour def visite stade bi waxtaan ak police ci nan lañ bëggee combat bi amee defaale tirage bi nga xam ne dañ xam fan la Modou te ne a yóbbaale loolu te loolu dafa mu mel ni bis bi instant yi ñëw na ba pare lan mën a xam ni instant yi taxaw na taxaw ngeen ci mu sotti. non lépp pare na naar bis bi moom lépp pare na ñaari mbëri pare nañ promoteur yi pare nañ ndax pare moom moo tax ñu ànd ak police ak sapeur ak lépp pour def visite bi pour waxtaan yan dispositif la ñuy jël pour bis bi mën a jaar yoon yan dispositif la ñuy jël pour mbër yi nan lañ mën a dugg si fan la Modou Lô di jaar fan la Ama Baldé jaar tey jàpp naa loolu yëpp dañ ko waxtaanee bu ñu waxtaanee loolu pare nag léegi moom dañuy compter rek suba dañ naan mardi mercredi jeudi rek match bi tas ndax tey la mardi sax suba la mercredi vendredi samedi dimanche rek mais fi mu ne nii xelu amateur yi mën na dal ci ñi nga xamante ni ñu doon jiixi jaaxa dina am wala du am. deux cent pour cent bu lu ëpp moom sax dañuy wax mille pour cent ne làmb ji day am cent pour cent ay du am ak du am moom yooyu waxu picc la pour man li am solo yooyu ñun ñu ngi ci événement ñu ngi santé wu ci nan la ñuy def ba événement bi am réussite totale ci loolu lañ nekk yaakaar naa ku ne ci lool nag moom xalaatoo beneen xalaat boo xam ne bu négatif la en tout cas suñu xalaat lépp képp ku ñëw fi arène nationale di nga gis ne làmb dekki waa dina joxe beneen xel kanam bu bokk te doon joxe lan lañ mën a xaar dimanche ci wàllu sécurité ci wàllu organisation waaw non loolu moom su ngeen ñëwee samedi rek ngeen koy xam ndax waxuma dimanche mais samedi la ñuy commencé bu neexee yàlla lépp luy arène dañ ci liggéey liggéey boo xam ne nii bu ngeen fi ñëwee incha allah di ngeen am lu ngeen wane comme yéen moom lu ngeen wane rek ngeen di wër yéen ak ñoom faat maak ñoom la mën a yem samedi su ngeen ñëwee di am lu ngeen wane ndax lamb ji samedi lay commencé comme yàlla dogal na samedi benn combat amul fii incha allah dañ a ñëw samedi teel a jublu ci organisation bi teel a xam ndax dañ ñoo woo pour ñu accompagner leen pour jàppale leen te ñun làmb moo ñu tax a jóg te làmb moo ñu fi nekkal bu ñu gisee ligue bàyyi làmb ji yëpp woo ñu ne ñu dañoo bëgg nga accompagne ñu pour jàppale ñu suñu làmb ñu ànd liggéey ci dañuy bàyyi suñu yëpp pour ñëw joxe ci suñu àq joxe ci li nga xam ne moom lañ am ba mu jeex te incha allah noonu lay demee te bu neexee yàlla dimanche ku ñëw fii dina xam ne jar ànd naa ñu jar ndax incha allah liggéey bi nañ ko teg ci yoon te it xolam na sedd na sedd sénégalais yi seen xol na sedd kontaan nañ ci maa ngi lay ziar baax naa di nuyu waa Bawal TV yëpp di nuyu Badu ah, muy nit ku baax nit la koo xam si nit ku ma estimé la muy maa ngi koy ñaanu baax baax li mu bëgg eh, yàlla na ko yàlla def di nuyu nag DG Assane Ndiaye waa borom Bawal production incha allah. waaw ah, Fallou waaw Fallou mooy DG mooy DG Kewal di DG eh, Bawal di DG SBT Média. ok ñu ngi jëm ci la cinq mas noo gisee bis. waaw bës la boo xam si ni amateur yëpp ñu koy xaar àdduna yëpp ñu ngi koy xaar vraiment mu nekk bés boo xam si ni bés bu euh, bés buy marquewaat euh, histoire làmb lay doon ndax Ama Baldé ak Modou Lo wër-wërloo bi yàgg na waaye fi moom li ñu naan wër wa dem na këng bàgg war mbaam lu waaye doon jaatee malam fi ne nii moom diggante Pikine ak euh, Parcelles yaakaar naa ne fi mu ne li ñuy xaar mooy jour yi mooy dimanche ñëw na ba pare donc di woo amateur yëpp ñu teel a génn teel a ñëw ndax boo xoolee ni ñu ko tëggee dañoo bëgg mu nekk làmb joo xam si ñii ñëw ñëpp dañuy ñëw si jàmm ñibbiwaat si jàmm te incha allah du am benn violence du am fi ñu koy séntu daal leen du ci am ndax Pikine ko xool xam ne ay champion yàgg na fa jógee Parcelles champion yàgg na faa jógee te diggante Parcelles ak Pikine yaakaar naa jàmm rek ñoo si xaj ñu ci jàmm sañ si war rafet boo xoolee ni ñu tëggee làmb ji béy sax nga xam ne ay cuune duñ fi ñëw donc ay nit ñu responsable ñoo ñëw ci làmb ji kon yaakaar naa ne nit ñi dinañ ñëw si jàmm mais dinañ dinañ ñibbi si jàmm te dinañ gis combat bu neex boo xam ne amateur seen xol dina sedd le 5 daal bu soobee yàlla Modou ak Ama Baldé am ak du am dimanche yàggatul dañ leen ciblé fii arbitre bi ndam li fanaan Pikine wala mu fanaan Parcelles loolu incha allahu taala. la open waaw tey la open press Ama waaye suba la open press ki nga mooy Modou Lo donc loolu dafay wane rek na euh, li doon jeexi jaaxa mooy ñaari mbër pare naan ndax ñu doon wax Ama parewul Modou parewul nangam mais kuy dem bay def open press mooy pare nga pour pour say amateur ne yow pare nga. donc côté doo ko rëcc bii malgré cher na mais dañ ko def pour amatir segg parce que nag làmb day toll foo xam si ni il faut ñu xool ñi nga xam ne ñan la ak ñaka la ndax billet 10 000 du ay euh, cuune du ko dagg billet 25 000 mille du ko dagg billet 50 000 100 000 ba 200 000 donc vraiment ñi ngi woo amateur yëpp ñu ñëw si jàmm ñu bis si jàmm naar nañu waxante lu rafet nañu waxante lu rafet nit mënu yëkkati ay centaine de million def ko ci ay ay ci combat ay nit taxaw fee di wax loo xam donc da koy yàq nit na toog ci garab ba pare di ko gor baaxut waa làmb nañ xool ni ñuy waxaatee ni ñu communiquer surtout presse bi surtout presse bi parce que nit ngeen a yor support boo xam support bu doy waar la donc war ngeen a xool li ngeen a wax xool ñi ngeen ciy jël yaa ngi dégg waxante lu ñaaw amut solo Sénégal ñoo bokk yaa ngi dégg nañuy wax lu rafet di def rafet te xam ne àdduna lépp loo fi wax dafay des te ëllëg nett li bi dafay des kon donc nañuy waxante lu rafet xool li nga xam si ne mooy jëmale làmb kanam ñu koy def Modou Lo ak Ama Baldé ñooy mayante xaalis Modou bu jël woon Ama du wala 50 millions wala 60 millions ama bu jëloon Modou kasaale bi ñaari nit nag boo mayantee xaalis nga encaissé 100 millions 200 millions yaakaar naa li war a jox moom mooy cër war ngeen nag waxante luy jaay làmb ji mais amateurs ak supporters ñu xam ne lii nga xam ne si moom mooy ñaari mbëri ñoo mayante xaalis ñu ñu nangul leen loolu xam ne ñoom lañ fay man nag du ma xeex si loo xam si ni kenn fayu ma Modou lañ fay ak Ama kon ñoom ñaar la ñuy xaar ñu xeex fii bëree spectacle combat boo xam ni amateur yëpp seen xol day sedd donc vraiment di nuyu bopp xam ne moom mooy Sowru Fall la grand ménager di nit ku Euh, nit la koo xam ni ku ma jox cër la macha allah du jëmam ji nii vraiment écrit Colobane mbooloo it mu mu taxawal ko vraiment di ci liggéey liggéey bu am solo ndax mënoon na nekk ménager rek yem ci mais bu demee jilaat euh, ay moyens investir ci écrit vraiment am na fu mu bëgg làmb jëm fa kon xale yi nañ gën a joxaat cër seen ménager yi donc loolu bëgg naa mu nekk bëgg naa ñu jàppale ñu si ménager yi mbëri nañ jox nañ joxaat cër ménager yi parce que ménager yi moom moo lay wutal xaalis ménaate wutalu la koy daan wala nangam wala nangam li mu mënal mooy wutal la xaalis ñu fay la xaalis ba pare ménaate mooy signé contrat bi donc clause yi mu signé si contrat bi dee leen mbëri dee leen respecté clause contrat bi nga xam ne moom la ménaate bi jël mooy feesu fees yi muy leneen muy leneen muy leneen ngeen di ñëw donc ñu bàyyi euh, euh, mbëri bàyyi préparateur mystique yi ak yenn sëriñ yi nga xam ñoom la ñu déglu ci ci làmb donc CNG xamul préparateur mystique CNG xamul sëriñ xamul kenn CNG kenn la xam mooy ménager promoteur kenn la xam mooy ménager donc règlement règlement la ñu xam loolu bu baax a baax a baax donc ñu ngi ñaan Sénégal yàlla na fi def jàmm ah def jàmm ci biir réew mi ak bitim réew ndax di nuyu nag diaspora bi ñëpp macha allah Baol TV nag moom sama yëf la quoi ndax Assane moom suma mag la suma xarit la suma nijaay la suma lépp la macha allah jërëjëf naar jërëjëf. am na solo Mass comme ni nga ko waxee rek Père Sourou Fall le grand manager gis nañ bu ñëwee arène nationale ni muy sonnee ci ay xalem keroog rek maa ngi koy wax sama benn interview di ko ci félicité bu baax di rafetlu liggéeyam macha allah duñ def lu dul nuyu ko Père Sourou si Arna bi. waaw naa maa ngi lay nuyu di nuyu euh, Badou sa man bi wala Baye Sikkim ñoo ngi koy ziar bu baax di nuyu moom frère euh, Mass di nuyu Fallou Ndiaye euh, bandi promoteur yi <coughs> maa ngi ko nuyu baax a baax di nii aussi Baol production yëpp. ñu jëm ci la 5 Père Sourou nan nga gisee bis bi ak ñaari. waaw d' abord damay ñëw daanaka fi Mass wax ci communication bi ñu wax ci biti pour dalal ci xelu amateur yi kum neex takka loola neex nga ñëw ci làmb ci làmb jàmm rek nga fi am. ndax euh, wax naa ko ci seen benn euh, euh, confrère barki dem nee leen xëy na da ngeen yàggu ci làmb waaye na mën nañ leen a jox date bu gën a jege bu jege lool muy Siteu Zarko moo gënoon tàng làmb ji fuuf gënoon koo dansé gën koo metti c'est que làmb ji dañ ci def benn communication mooy li maas wax léegi benn communication boo xam ne dañoo dem a dem ba mu dépassé làmb loolu moo loolu moo tax ñu yóbbu làmb ji foo xam làmb ji àggu fa mais làmb kese la defe naa ko seetaan Gris Bordeaux Yékini mu dem ba feetal tàkk ci doo wax làmb ji Balla Gaye Modou Lo moo gën a métti làmb ji xam nga kon ji bu ñu wax naan Modou Lo am bal ñu bëgg def bu ñu bëgg ko def boo xam ne yaakaar ab guerre ci am wala nangam nangam jàmm dong ngay am na ñëpp ñëw ci làmb ji beneen bi may gën a dalal xelam mooy ku mel ni Fallou Ndiaye bi ñu ko jox léegi war na taxaw léegi Fallou bi ñu ko jox léegi day koo xam ne tey bu ñu ko ko joxee joxuñu ko par hasard parce que Fallou ñàkkul fula nit ñi ànd ak moom di liggéey na moom xam nañ ko bu baax a baax a baax ñàkkul fula ñàkkul fayda ci bis pour bëgg bés baax man xam nañ ko bu baax a baax baax baax ba ci combat am yow gis nga ni ñu demee mën nañ ne du ma daan Ndiaye même moo jege ni ko gannaaw combat bi laay taxawoon mënoo ci dara jékkeen avance joxoon itam buñ ko buñ jékk yëkk lépp teg ko ci loxoom woo ko ko ci lig doful lig xam na leen def baax a baax xam na fu ko teg bu baax a baax a baax a baax te ku ñëw fii dimanche ci kàttu yàlla suñu borom danañ xam ne làmb dana dana dana joxaat ñeneen beneen jéego en tout cas li ma lay enseigner fii mooy géew bi bu so ci kàttu yàlla suñu borom bëgguñu ne yéen ngeen mer waaye dañ leen organiser wax bi yoon fii laa la koy teel a wax léegi mais ni ngeen naan def moom bu ko bu kenn Fallou Ndiaye wala lii wala leneen leneen loolu moom dimanche moom jàpp leen du am géew bi moom dana leer tee leen ko kuy ñëw daal sóoraale ko xaw ma nag lu ngeen def waaye géew bi moom na leer moom du ko jegeet bi yoon suñu partenaire ngeen nag waaye amateur yi dañu am solo waaw comme ñoo farit nag euh, bëgguñu kenn mer ndax keroog gis naa amateur yi di kaas kenn mënul seetaan tous ndax presse bi ñu ngi woon noon kaas di kaw voilà léegi nag euh, beneen ba nag mooy côté CNG nañ jël seen responsabilité waaw parce que lamb yu toll nii itam bu ñu ko taxawee itam ñoom surtout superviseurs yi parce que bu ñu nee CNG rek dañuy daal wax bureau mais CNG bu ko waxee ci biir lamb mooy superviseur yi ñoo di jëppoon parce que biraadu biraadu newul ci terrain uh-huh. ci terrain donc ñoom Maïssa certes Maïssa des fois mooy ne ci terrain bi mais ñeneen ñëpp ñëwuñu ci terrain bi mais ñan ñoo ci terrain bi yi moo tax ñuy wax bu dee arbitre yi la arbitre bu ñu duggee seen fii bu ñu génnee seen fii ñoom bu ñu demee seen seet la toog amatuñ lan lañu kii biir géew bi lañu la ñuy wax te la ñuy seere yomb naa seere mais porte yeeg dugg entrée bi yëpp ñu ko yore superviseurs yi ñoo ko yore kon nag ñoom itam ñu vigilant làmb ci ñoom la ñu jël seen responsabilité làmb nag bari na yu ci ne yoo xam ne il ñuy wax yenn yi kenn ku ne jël sa responsabilité pour làmb ci baax nit du investir ay millions nga ñëw def n'importe quoi loolu baaxul loolu baaxul nañu respecté te respecté nit ñi daal loolu laay joxe encore une fois di rafetlu aussi maas li mu wax la parce que moom ci ñoom la parce que ñun bu fekkee dañu jox ay xale man xëy la am fu ma nekkoon produire ay xale bañ mel nen ni bañ naa ko sama équipe lu ma jël ku nekkul fenn mais tey mën naa ne tey côté boobu sax mosuma ci communiqué mais li mu ci rek moo tax ma ci communiqué sama équipe am ci ay ñu bees ñoo xam ne ñu fa ñu benn équipe bu ñu am ci simple ménagère parce que dafa am ñu ko doon wax ni simple ménagère la woon may sant ci loolu parce que na ñëw ma benn écrit fii benn écrit lu du sama référence wala na leer waaw man benn écrit bi du sama référence maa ngi yor samay xale yor sama encadrement yor sama staff kenn du ma dégg ci lenn yor samay xale di di yéex di ànd ak ñoom di liggéey sant yàlla suñu borom baax a baax voilà tey boo ñu doon wax ci ñaari mbër yi Modou Lo ak Ama Baldé noo gisee seen taxawaay waaw euh, bu ñu koy wax làmb la li ma wax bërki dem rek làmb ji làmb Ama Baldé la uh-huh. bu ñu ne làmb Ama la nag waxuñu ni mooy daan wala wala mooy favori déedéet favori moom mooy Modou Lo bul waxati dëgg parce que waxi da koy ñeme favori bi fi ñu ko tegit favori nag ko ça mooy daan déedéet ñi bis bis yi Modou Lo am ama amu ko mbër yi Modou Lo bëri ama bëriwul ak ñoom parce que ama ñu bare ba bu ñuy wax dañ naan euh, maali Niang la ñuy wax tafatin mais bis yi takkusaan yi Modou am amu ko kon Modou Lo mooy favori non mooy favori jërul lim non jërul lim rek en tout cas mooy favori lu mën a xew mooy favori waxuñu nag mooy daan mais ama mooy moom combat benn ama moo laaj ama moo Modou Lo moo yor liñ bëri yëpp soxla ama bëgg ko ama laaj ñu am fu ñu ci mbappat xëy na doo booba léegi ñu koy nettali waat léegi parfois kon ama moo am lu mu bëgg làmb làmbam la moom nag moom la ñu déglu Modou Lo amul lu mu ciy perte wala lu mu ci benn kii bu mu bu mu ciy perte wax yi waxante rek ginnaaw kii ñëw na signature loolu ay wax la yoo xam ne ay seeti débat yoo xam ne jëwul fenn en nañ ko teg ci li ma daan wax toujours rek nañu fexe ñëpp bu leen amateur jéppi ñi ànd ak ñoom nañu fexe ba respecté te respecté amateurs yi waxuma sax ñoom ñaari camp yi kese kese ñuy tooñante wala yooyu mais lu fa am nañu respecté amateurs yi nga xam ni ñoo ñëw di leen bàyyi seen liggéey lu mat lu mat 5 ans ñu ñu ciy werante nañ leen jox cër jox cër promoteur bi nga xam daf leen jox seen xaalis mais nañ leen jox cër jox leen yéen ñi nga xam ne chaque jour yéen a ngi ciy daw suba ngoon kon vraiment loolu la lañ ñaan yàlla suñu borom encore une fois daal di waxaat rek amateurs yëpp bu kenn am leen looy tiit ku ci am solo rafet solal jigéen ñi ku ci am su takkaay su takkal ñëwul ci lamb jàmm rek am maas jàmm rek am dara du am jàmm rek am wax yëpp communication boo bu baaxul la mais jàmm rek am ci lamb te luy maa la ko waaw waaw jàmm lamb rek fi am waaw ñoo baax yow vraiment yow on ensemble